au calme damaa jongama ba yàqu vraiment ëpp na je suis trop belle quoi na def xale hanche nii def xale poitrine dans la désacralisation au calme bul fay sama kii bi mais bàyyi nga def waay ma